émission bi yow diplômé nga wala diplôme da nga yor da nga sans emploi wala. oui comme diplôme sans emploi nga. oui ba pare diplômé. oui. bon question question bu bu ndaw la rek est-ce que nekkul lan lan moo lan moo motiver sa combat ak yow sa statut lan mooy lan mooy rapport bi. Euh, combat par rapport au statut. en fait le statut man c'est du vécu. c'est du vécu c'est du vécu mooy. nga au sortir de la formation euh, de la formation universitaire ah. académique universitaire toutes les options qui s'offrent à toi pour pour insertion professionnelle nga boo déggee emploi tant qu'il n'y a pas une base contractuelle sur laquelle tu travailles okay. Mm-hmm. tu ne peux pas te considérer comme étant employé da ngay nekk sous-emploi okay. et ce, ce qui est commun pour la plupart des jeunes li ëpp ci jeunes sénégalais yi qui ont qui ont passé les cursus ba dem enseignement supérieur mm. ñu ci ëpp ils sont condamnés à des stages éternellement renouvelés. loolu loolu se un constat unanime ça veut dire le plus gros lot de génn université on les affecte à affaire boobu. ñi ñi nekk ci seen kii bi ñaa ñaata euh, ñoo xamante ay diplômés sans emploi la ñoo xam ci seen regroupement bi lañ nekk ci lim bi nu mu toll. en fait boo xool association bi c'est une association qui est reconnue qui est légale booy xool ñi nekk diplômés sans emploi Sénégal c'est des milliers mais ceux qui font association c'est une cinquantaine xam nga. c'est pas am am association bu nekk tu ne pas avoir la prétention boo nee association des mareyeurs tu n'as pas ne pas avoir la prétention de regrouper mais ñun on fait à peu près une cinquantaine de personnes yoo xamante ne ama boo nekkee sans emploi man je donne l'exemple des activités que nous organisons mm-hmm. di nga organiser benn manifestation pour les sans emploi certains membres du bureau peuvent ne pas avoir la possibilité d'être présents parce que dañoo nekk ci liggéey jàmbur am sans emploi ça veut pas dire que tu tu là à ne rien faire mais tu es occupé à des postes yoo xamante ne ça a aucune perspective professionnelle wala nga nekk si ay contrat de prestation yoo xamante ne dañ koy surchargé surchargé ba tu te retrouves à faire loo xamante ne tu n'étais pas formé à le faire mm. alors même si loolu ce n'est pas dans l'absolu une mauvaise chose parce que euh, stage de requalification yooyu yëpp dafay amaat mais le plus dur li ci gën a métti mooy l'absence de perspective professionnelle pour ceux ont, tous ceux qui ont pu passer toutes les étapes du, cursus, du, du cursus d'enseignement supérieur. J'ai compris. En fait, la mot